tey nag ñu ngi toog ki nga xam ne nii moom moo di Palla Diop di rakku Papa Diop Boston di manager nekk ci làmb dafa naa yor ay mbër di leen tàggat tey defe naa làmb ji ku ne dégg na coowal huis clos beeg yu mel ni kii noonu ak jàppal bàyyil ñu fas yéene nag waxtaan ak moom si làmb Père Palla maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, Babacar maa ngi lay fay bu baax euh, di nuyu suñu mag yi nga fekk si fii di Mansour Diop euh, di ko nuyu bu baax di nuyu Pape Thiam. ak suñu soxna si nga xamante ne moom moo nu toggal léegi añ bi Fatou saw moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, di am contentement nag ci daje bi tey sóoru ma la fi woon waaye ma fekkee tamit euh, yàgg nañoo daje ci milieu làmb kon suñu waxtaan lu yomb lay doon ndax wax ci loo xam dafa yomb voilà mu ngi waaw wax ci loo xam parce que defe naa ne kuñ ne Papa Diop sa mag ak Mansour Diop war nga mën a wax ci làmb euh, dugg paala koy gis comme menace am ñoo dañ ne dañ ne da doon bëree paala day dëgg doon bëre wala déet. Ah, man kay dama daan bëre euh, ay ñoom Moustapha ñoo ñëpp bëre naa ak ñoom bañ naa ko Moustapha Gueye promotionnaire la may woowee da man bëre naa dem même équipe nationale lutte olympique nekkoon naa fa kon euh, làmb moom amul lu ma ci lu ma ciy woneeti. waaw kat ko teel 98 laa nekk ménager. laa dugg ci mbirum man booba damay ngembu sax engagé mbër ba pare ñëw saal ànd ak moom di entraîner waaw. ban mbër nga njëkk a ménager. benn xale bu ñuy wax Mama Ba Njaga Jóob la daan àndal parce que Njaga Jóob bi muy bëre Baay Yéeree ko yoroon may ànd ak Baay Yéeri ci Baay Yéeri nag laa jëlee maanaam affaire u vinisu ménager dugguma ma Baay Yéeri jaxate mu may yónni may dox ay course am ne góor gu baax di am góor goo xam ne pédagogue la woon góor gu am xel macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana mu ne ma yow ni ma la gisee coono bi ngay daj ci làmb war nga mën a nekk ménager boobu moo mën Mansour yor ñoom Njaga Jóob yor xale yu baree bari ti ma yónni nag ma koy doxal kursam yu baree bari tamit ci làmb ji noonu daal ci laa koy toppee ba dugg ci affaire bi 98 yàlla ubbil ma ci tamit ndaanaan lu ne yor naa la ci kase bu ne signé naa ko naa ci tamit ci ménager yi njëkk a dem Europe yóbbu làmb ci la bokk muy Bercy France waaw. am na solo léegi loolu nga wax am na solo defe naa ne Pikine ku ko wax Pikine mbooloo daan nga fa dégg ñoom euh, baaboo yi di dégg ñoom après ngay dégg ñoom Malal Ndiaye. booy sëy ay tonnerre ay cek mbër yooyu seen dikk ci làmb bi ñu ñëw ci làmb sa loxo lañ jaar wala da nga leen fekk wala nu mu demee. Euh, léegi sax am na bala may sori dama dégg mën Mansour di wax sànq ni bëre na lu mat quatre vingt et quelques xam naa ne moom fàtte na li mu bëre woon mais li ma la mën a wax muy diggante Thiès Dakar ak Thiès moom bëre na fa lu mat quatre vingt et waaw diggante dakaar ak Thiès rek laa lay wax bëre na fa lu mat quatre vingt et quelques waxaguma la Jurbel waxaluma la Kaolack waxaluma la bi ñuy dem ak moom Tamba waxuma la bi ñuy dugg moom Gàmbi Sérékunda ak bànjul kon quatre-vingt eh, quelques combats yooyu mu wax xam naa ni eh, tukki bu yàgg bi mu def sax moo tax mu commencé fàtte ay combats mais diggante Ndakaaru ak rek li mu fi bëree ëpp na quatre-vingt quelques combats kon bu ñuy xayma mën nañ ni moom ay trois cent quatre cent combats la ñuy xayma ndax daanaa ànd ak moom muy bëre samedi dimanche lundi mardi mercredi vendredi ba samedi ba dellusiwaat ma ne ko est-ce que jàpp nga ni depuis semaine bii chaque jour am nañ fu ñu bëree ji nañu ndëkki peere nga noppalu parce que ñun sonn nañ ñun ñi lay topp. am na solo léegi su ma ñëwaatee mbër yi mën a limbal sànq ñoom booy Sey ñoom Malal Ndiaye ak euh, ñoom Tonnerre ay cek mbër yooyu yëpp defe naa yaak ñoom ci sa loxo lañ débuté wala. waaw ñoom ñëpp sama loxo. Boy Seye nu mu dikkee sa loxo damay ñëw ci Boy Seye nu mu dikkee sa loxo. bi muy ñëw sama loxo maa ngi daje ak moom postu caaro yi hmm. ma toog ak Max Mbergane mu yor ay bagage njaay di ambulant Max Mbergane ni ma xoolal Boy Seye ma ne ko booy bi ni mu mënee bëre ñëw fii di ambulant mu ne ma aw ma ku ma jàppale Max yóbbu ma caaro yi Max ni ko duma la yóbbu caaro yi mais paala mii na la yóbbu Pikine ndax caaro yi écrit lébu la mais Pikine moom mbooloo la ñëpp a fa daje na la fa yóbbu ci yooyu condition la ñu xamante ma jël ko indi ko Pikine yàlla ubbi ko ci samay loxo nag muy ndaanaan loo xamante ni ndam lu ne am naa ko ci moom. ni mu déclenché ci làmb ba nit ñi dégg mën nga ma ci dikkal ci Louga. waaw déclenchement bi ba mu ñëwee maam buubu waalo laa ko njëkk a jox mu daan maam bu ñu teg ci deux mois sëñ Modou ñaar tëgg kombaam euh, ak xaadim euh, Gajaga mu daan xaadim Gajaga sëñ Modou ñaar tëgg kombaam ak Saalum Saalum. mu daan saalum saalum sëñ Modou Niang tëgg mbaam ak Bombardier numéro 2 mu daan Bombardier numéro 2 ñu jox ko Balla ku kuñ naan Madou Sila tëgg ko mu daan euh, Balla Diouf ba mu ko daanee nag ca la déclenché dem dugg ci kalaafu 2006 ba mu fa jógee nag après bëre naa ak ñoom Balla Gaye ak ñoom Brice Lek Papa Sow xale yu bari daje na. kalaaf bi mbokk nag Balla Diouf Bathie Seras ak Zos. puisque moo ko dugalee ci kalaaf boobu muy kalaaf boo xamante ni tamit kalaaf bu réussir la parce que ba ka Gaston di def ñu bëri dañ woon mënul nekk mais daanaka kalaafu 2006 boobu moom ba léegi crème làmb ji ci la nekk parce que kalaaf boobu Balla Gaye nga ca woon la daguère mii ma nga ca woon euh, Modou Lo mii bokkoon na ca Papa saw mii bokkoon na ca kon ñooñu ci doon bëre tey ñoom ñoo nekk VIP ba ay roi des arènes judd ci seen biir kon Gaston tamit vraiment am na may am na tamit lu bëree bari loo xam ne liggéey na ko ci làmb wax dëgg yàlla waaw waaw. Boy Seye bi nga koy andi noonu ci kalaf bi muy bëree boobu kase ci la kase làmbam fu mu taxawoon. booba Boy Seye rek moo ci bëri 10 millions ñi ci des ñëpp ay 3 millions 5 millions la ñu bëree. ay ñoom Lac de Guiers ay Balla Gaye. ay bëre kenn bërewu ci woon 10 millions. moom rek moo ci yeggoon foofu mook Balla Gaye yàlla ubbil ko ndeysaan mu doon xale boo xam ne dafa gëmoon yàlla aussi su bëree bu ñàkkee bu gaa yi yuuxoo mu ni déet suñu borom moo ma xañ loolu ci moom laa ko njëkk a xool muy xale bu fair play nangu woon nag dogalu suñu borom def ci jaloore yu bëree bëri booba nag kalaaf bi bi ñu koy def ñu bëri xalaatuñu woon ni mën na ne am na ñu bëri dañ doon critiquer est-ce que loolu dina ko réussir du ko réussir Gaston ñëw réussir ko mais gis nga tey loolu mu defoon moom moo indi làmb fi mu yegg parce que 2006 euh, làmb dafa xawoon a euh, sooxe mais bi Gaston ñëwee. 2006 ànd ak euh, benn société téléphonique ci la làmb yéegee su xolliku ñëpp dugg si kase yi di dem di dem ba yegg ay cent millions loolu aussi liggéey la woon boo xamante ni gason def na ko li ginnaaw gi nag société mobile yooyu bi ñu retiré ci làmb ji seen bopp ci la làmb commencé sooxe ndax feccum liir bu neexee am na ku téye ca mbagg ya te amul benn mbër bu mën a fay sa bopp cachet sponsor yooyu daan dugg si moom moo daan tax promoteur bi mën a tibb ci sponsor bi jox mbër mi lu mu jaay ci billet rek da koy daal di doy sëkk yooyu nag amatul looloo tax làmb ji commencé dee mais feebaru làmb yëpp ñàkk sponsor rek la. mais aussi euh, promoteurs yi am nañ ci part de responsabilité parce que tey su fekkente ni man am naa sama sponsoru cent millions ñëw di tëgg ay làmb beneen promoteur dem ca sponsor ba ni ko cent millions yi nga jox kii boo ma joxee cinquante millions ma defal la li mu la defal sponsor ba dem ca kooka keneen jaar te suuf ñoo ni man boo ma joxee vingt million mën naa def li mu la defal te sponsor yi waroon daw di topp athlètes yi léegi promoteurs yi ñooy daw di topp sponsor yi sponsor yi daal di commencé retiré wu làmb daal di dee donc am na ci ay promoteurs yoo xamante ni am nañ ci part de responsabilité ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom moo dal ci làmb léegi nag dañu toll foo xam ni wala dafa mel dafa am lu mu bëgg. luy solution bi laa la bëgg a solution bi mooy président de la république tabaxal nañu stade bu mille place arène nationale lu musul woon a am ñun réussir nañu mais stade ba li muy rëy rëy rëy rëy rëy mënuñu cee tëgg combat bu baax parce que amuñu ay sponsors yu ñu mën a couvrir stade bi aussi promoteurs yi seer na ci ñoom loo xam ne yow da nga ko may ñii. waaw mu gën a bëgg a seer li nga xamante ni dañ ko doon luyee ji kon kay may boobu jar na xoolaat ndax tey Iba Mar moo gën a yomb arène nationale Demba Diop bële moo gën a yomb arène nationale te ñun dañ ñu ko may kon kay fi ñu toll nii ñoon bañ ñu ko joxee rek lañ ci waroon raxas loxo chinois yi ba mu set jël ko teg ko ci loxo CNG wutal ko directeur boo xamante ni moom mooy toppatoo stade bi wutal ko personnel boo xam ne ñoom ñoo fay liggéey ñu mën a jël stade bi yombal ko ci loxo promoteur yi kon stade bi dina mën a dem ba tëgg sax samedi ak nocturne di tëgg sax jour ordinaire. am waa làmb saa yu leen neexee rek dem ca. neexee dem ca mais fi ñu toll nii làmb ji bu tasee balaa man bu may def consultant 2STV euh, yi su jeexee bala may dindi sama casque ñu fay làmp yi fay làmp yi dootoo am foo jaar ba génn sax estade bi. am na benn télévision bu nekk ci biir stade boo xam ne war na mat 6 mètres boo xamante ni tey ñun waratuñu woon am sax werante ci làmb ndax télévision la bi ci kaw écran géant la foo toog ci stade bi mi la tiim man defoon naa ni day la problème mu làmb waaye benn yoon lañ ko mës a taal mooy ba fa jour ba fa Macky Sall ñëwee la ñu mës a taal écran géant boobu léegi pour ñu taal ko dañuy wax ne il faut nga fay 500000 ñu doog a taal télé bi mais promoteur bi mi ngi bëgg a dee di fayaat 500000. 500000 ah, ngay fay pour ñu taal l'écran boobu. mas nga ko gis mu tàkk yow. mosuma ko moo xam nga ko ñëpp bëgg mu tàkk. mu ngi dox mi bu bees la di bu chute amee balaa arbitre di yëkkate loxo wala werante am. mais dañuy wax ne nañ dem ci écran géant bi. def ko vaar adduna mais kenn mësu ko taal parce que téeméeri junni yi ciy laaj du jaral benn promoteur boo xam ne stade dafa seer ba pare ngay fayaat 500000 pour ay télé loolu yëpp nag li ko indi mooy dañ euh, am ta bul laal lañ ñu ko joxe. maanaam waaj laa joxe ndi joor nangoo càmm. nangoo càmmoñ arène bi buñ dee waxante dëgg nekkul ci suñu loxo nan la ñuy amee ministre des sports ñu ni ko yow yaa jiite waa làmb ji président de la république moo leen tabaxal arène nationale bii teg ko ci seen loxo. ñu jël arène national bi bàyyi ko ci ay loxoy chinois amul direct amul directeur bu ko diriger CNG fekk naa fa réunion fan yi boo xamante ni réunion bi amul woon ndax dañ ni CNG avertirul woon chinois yi ñu chinois yi moom moo tax ñu woon ubbi salle boobu ñu war a réunion we loolu mooy lan kon yaa problème moo tax ni ñuy tiitaroo naan arène national arène nationale tour la rek mais li laxasu ci arène national bi yëpp yëpp yëpp yëpp bari na bari goo xamante ni ñun daanaka amuñu arène national la beneen bi si topp mooy Covid 19 bi ñu nekk. bi dañu ne coow lu rëy ci làmb. football bi ubbiwul. ak basket ba kañ dégg. basket ba course ba nag. mais ni ñi def ba ñu ñooñu ubbi nañ ñu ko defal ñu ubbi ñun waxuñu ni xam nga tey stade bi vingt deux mille places la vingt deux mille places suñ ci jëlee ñun bu ñu joxee dix mille places rek geste barrière am na vingt deux mille nga jox ñu dix mille places ku nekk mën nga toog mètre rek sa morom du ngeen laalante takk masque laal gel kenn du laal sa morom bañal nañ ñu ko waaye état na yëkkati moyens yi mu jël ba jox ay woykat ki théâtre kat ay milliards ñu di ko dégg suñ ñu joxee genn wàll gi problème mu làmb réglé wu te làmb li muy jariñ nii ñoom ñooñu jotewuma ak dara musiciens yi nag waaye ñaata championnat d'Afrique mooy am par an ñaata médaille mooy dugg fii yoo xam ne làmba ko indi football bii nga xamante ni liñ leen di jox ci ay milliards xam nga médaille médaille la rek médaille door ba footballeur bay takk ak bi judoka bi takk bi mbër mi takk yëpp médaille d'or ku ne daal réew woon réew mi nga xeexali woon tey ñaata athlète ñoo fiy jóge championnat d'Afrique di dem di indi médaille ci bëre lañ ko amee francophonie li tax Sénégal baaturoon record ba parce que médaille francophonie ci lit ba fa dugg la Sénégal raafule lépp bay mayewul dara loolu may ñu ay tur ak ay jéego yu yaatoo yaatu léegi nag ñoom jël nañu làmb rey ko fi ñu toll nii li ñu ko reyee mooy amuñu edd dimbaliwuñ ñu promoteurs yi ñu jël vingt quatre million di leen ko jox xama vingt sept million ñoom waruñu ko woon jël parce que promoteur bi du moom rek moom moo Euh, am problème ñoom promoteur yooyu ñu séddale xaalis bi dañu régulariser woon seen combat ba pare ba ñu demee ba saison bii tëj dañ leen delloo waat seen xaalis ba ñu indi woon seen CNG ñu yóbbu waat seen xaalis mais am na promoteur yoo xam ne jotuñu woon a régulariser avance bi promoteur yi joxe yem ci ñoom pour xaalis boobu lañ joxe yem ci kon bu ñuy jox kay war nañu mën a jox ñëpp ñu tànn quelque jox leen ñi ci des joxuñu leen loolu yaa problème làmb ñi ci impacté dafa impacté dafa bari daaw mbër yi xale yi ci jël licence bari na xale yi nga xamante ni dafa renouvelé woon nañ seen licence di waajal bari na ménager yi mel ni ñun kenn ku ne licence fukki junni nga dagg promoteur yi dagg licence waaw ñoom bu ñuy dimbali man ma jaakaar ni état dafa war a yëkkati loo xamante ni képp koo xamante ni bokkoon nga ci loolu di ci yëngatu génn sa wërsëg dagg ca licence war nañ la mën a teg eh, dimbali mais ñu ñu parce que licence ngeen dagg ci ci état ci ci ngu ci ci keesu état la jëm. seen kees la jëm amuñu lu ñuy def lu tànn ci quelque personnes ni jox nañ leen vingt sept million vingt sept million benn promoteur sax soo ko joxee. sept millions ci làmb de. promoteur yi am na si ñoo xam ne sonnoon nañu waaye man su ma bokkoon seen association bañ koy joxee dañ naan état baax na wala ministre ba baax na parce que lii réglé wul suñu situation léegi nag jafe-jafe yooyu yëpp jàll na li ñu bëgg ñu xam ko mooy. làmb sonn nañu état na yëkkati ay moyens d'excavation ñoom ñoo wax ni mille milliards lañ génne ñun xamuñu mill milliards nu mu toll xamuñu ndax xaj na ci néeg xamuñu ndax xaj na ci fu xaj ñoom ñoo ko wax di yëkkati di jox ay artistes ak tu nekk nañu génne làmb la mu ca am jox ko subventionné promoteurs yi làmb ji bu fekkente ni kenn duggulit athlètes yi commencé di bëre ñi nga xam ne ñoom ñoo ci doon sonn ñu seet lu ñu teg seen loxo parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk kenn moomu ko lépp lu si waay jël jox ñee bàyyi ñi des da ngaa def lu la neex rek ni président de la république defe conférence de presse am boobu premier janvier jour boobu la waroon a régler problème mu làmb bu ñu fi jógee kenn ku nekk xam fi ngay teg sa bopp. mais fi décision yi di gaaw décision yi di gaaw parce que làmb tëjaat na tëjaat na parce que janvier bi rëcc nañu. février gëmuñu ñu tëgg mars avril nawet bi ñëw koor ñëw tabaski ñëw waaw xale yi jotoon avance dootuñu bëreeti encore beneen jafe-jafe daanuwaat suñu kaw te amu ñu fenn fu ñu ko jooyee fu dul président de la république ak gouvernement am. pic Munich 72 Montréal 76 Moscou 80 doon olympiade te de ans ministre des sax musul ñëw seet si ko. Doubalese ngi tëdd Mbaye Guèye ngi tëdd. booy bambara ngi tëdd ñoom faga waaye ñun ki nga xam ni moom moom nekk si ñun tëlewul lu ñu ko faje ndax mi ngi faju li mu ñàkk ci boppam ay millions la fajoo fi ñu toll nii te ba léegi tanewul soo demoon nii pour mu jóg toog problème la ba fii ñu toog nii ministre des sports bii nga xam ne mi ngi ci làmb ji musul yëkkati téléphone mu woo ko mbaa mu seet si ko te xanaa Pape job champion d'Afrique Pape Diop Basson booy na ci lexu nit ñi ba pare ñu tuddee ko ministre làmb ministre làmb te yow li nekk ci sa biir njoboot xamuloo ko. da ngaa jàpp ne li ñu ko tuddee ko wala. man de xaw ma ndax mérito na ko waaye rafetoon na olympiade bu def ñetti jeux olympiques ci réew mi doon champion d'Afrique trois fois doon lion d'or am chevalier di lion lépp luy ndombay tànk bu ñu joxe ci réew mi mu takk ko ci mbaggam tëdd ñaari at ministre des sports bi musu koo woo téléphone musu koo seet loolu ñaaw na trop. waaye dafa rafet. reconnaissance nationale ngay soxla. ko Ablaye Wade waxoon ni ko damaa dugg ci avion di dem Moscou fekk la ci avion bi nga yor benn drapeau ma ne waaw xale bee nga xam ne moom ni ku ñuul la doon athlète àndul ak kenn moom dong ci avion bi fu la jëm nee na Ablaye Wade ni ko booba maa ngi jëm benn réunion Moscou nee na mu ñëw ba jege ko ni ko waa yow foo jëm sama doom mu ni ko man daal dafa am jeux olympiques yu am ca euh, Moscou ma qualifié si Sénégal amul doole daggal ma billet aw ma entraîneur aw ma kenn ñu jox ma drapeau bi ma war a représenter ji Sénégal ca jeux yooyu di jeux olympiques Ablaye Wade ni ko ah mu ni ko waaw bi ko Ablaye Wade recevoir aatee te boobu il faut mu ànd ak yaawu jaal pour mën a gis Ablaye Wade mu ne ko pap est-ce que yaa ngi fàttaliku ba ma la gisee ca avion ba yow rek nga yor drapeau àndoo kenn amoo entraîneur amoo dara di représenter ci Sénégal ci jeux ba nga ci jógee lu ñu la defal mu ne ko dakkal nañ ma médaille euh, chevalier di lion yooyu jox nga ma lion d'or waaye kenn defalu ma dara Abdoulaye ne ko bis ni ko tey def naa la chargé de mission di président parce que yow mérito nga lu ëpp lii ca la ko Abdoulaye Wade defee chargé de mission di président de la république mu fay am salaire ba ni président Ablaye Wade wàcce ba mu wàccee ñii fi ñëw ba ñëwee dañ koo fàtte. nit ki nag dama yaakaar ni ancien combattant moom waroo fi nekk pour président benn képp ku ñëw war na la mën a delloo sa cër Macky Sall war na ko mën a delloo cëram. Euh, waa léegi per Palla wax ji am na solo defe naa message bi xanaa ñoom dinañ ko dégg euh, léegi looy tàggoo. waa li tàggoo daal. di sant yàlla di julli si yonent bi di la gërëm yow parce que sa lii ngay def nii am na solo ndax ñun message yi ñu soxla ci lañ koy waxee léeg ma nekk ci télévision yi di ci wax mais lañ may woowee ca télévision ba consultant la am na yoo xam ne duma ko mën a wax waaye ku mel ni yow bu déplacé woo wala ma daje ak yow fii damay mën a wax suñuy message kon nag ñi ngi wax état nañu dimbali suñu mag ñi nañu gaaw ci ordonnance yi te moytu nagu dëji ak enveloppe bu dëji amul benn njariñ bi ci topp nañu dimbali ubbil ñu suñu làmb ji dimbaliñ ci Covid 19 bi ubbil ñu suñu làmb ji ñu mën koo dàq stress parce que un an bëriwuñu ba pare di dund feebar bi stress bi day gën a yokku di ñaan yàlla nag yàlla na fi yàlla dàq mbas mi jàppale réew mi ñëpp réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm di kontaan bu baax a baax.